Assalamualaikum, dal leen ak jàmm mbokk internet yi sa fo 17 nan bus mtv cant ak ngeureum ñen la len ci tewlu bi ngeen di tewlu sen bi jamono bi nak senegal jaxaso na lolu ndax kat nak rassemblement bi nga xamne nak ñi fété ci opposition bi won nañ ko tay ji nak ci aduma ji bu nu ba paré daal dinañ koy amal waye nak tak der yi bàyyiwuñ leen ci ndax kat nak fépp fuñ taxaw dañ fa dóor ay lacrymogène ba ñëpp di daw tasaaroo mu nekk nekk mbir mu day waar jamono bi Sénégal jaxasoo na lool lool sax te lépp nag dara waralu ko lu dul élection présidentielle yi 2024 yi nga xam ne nag daal nañ koy dàq te mu waroon a am le 25 février ki di président Macky Sall nag dàq lu ni mel ndax ay coow yu am fële sa conseil constitutionnel. assemblée nationale lu ne mel nag tax ñu dàq yile élection ku jegi nag lànk-lànkaaral ne lool nag duñu ko nangu tax nag tey jii ñu woote woon rassemblement pacifique Dakar fépp si Sénégal si régions yi ñu bëree bari kenn demul ñu des daal di ñuy wuy ji boobee voté waaye nag lu ni mel lu ni mel daal woy takk der yi daal bàyyiwuñu leen si tax nag fu ñu taxaw rek daan nañ fay sànni ay lacrymogène mu nekk nag mbir yoo xam ne doy na waar lool tey ji tamit euh, journaliste yi tamit doon dem fële sa Walfadjri ngi li jàppale leen ci tëj gi ñu tëj seen seen bii nii nag euh, tax sax foofu tamit euh, na mu mujje mooy ay lacrymogène yoo xam ne daal daal di nañ ko fay sànni mu nekk mbir yoo xam ne daal daal di nay doy waar loolu bile jamono Sénégal nag daal di nay jaxasoo trop sax ñu daal di ñaan rek jàmm jàmm daal di ñëw daal di wàccaat sunu réew mi di Sénégal ndax kat jàmm képp nag moo fi xàcc li fi am daal Sénégal mérito wutu lu ni mel